am ni Moustapha Lo président GIE Codipass waaw liggéey bi mel na ne fan yi xaw naa bari ay jafe-jafe lool jafe-jafe yi nag bokk na ci mooy gerte gi jafewaayu gerte gi ci àll bi ak maanaam eh, ñi nga xam ne ñoo ñuy sonal ci àll bi lool muy contrôle économie yi oto yi nga xam ne dañuy jëndi gerte ñoom la ñuy jàpp te liñ leen di jàppee lépp nekkul loo xam ne mën nañ cee teg loxo ne lii lu war la loolu bokk na ci mooy dañuy dem ci marché yi wala dem ci dëkk yi fekk leen fi di leen jàpp ni xamuñu lan la ñuy jënde gerte gi te ñoom wóor na leen ne gerte gi fi mu ne nii ñun ñu ngi koy jëndee ay 325 ci àll bi ak 335 ci àll bi kon ñoom leer na nañ ci ne xam nañ prix bi ñuy jënde gerte gi waaye nag lan lañ bëgg lañ xamul ñun parce que gouvernement bi tëral na prix bi ne 275 la plancher la mooy ku nekk mën ngaa jënd lu ëpp lool ñu dem ba ko jënd ci baykat bi trois cent vingt cinq kon yaakaar naa war nañ ñoo mën a may jàmm ñu jënd gerte gi jàmm ak salaam ku nekk yóbbu ko fa la neex nga dem jaayee ko fa usine bi nee na trois cent dix moom la mën a jënd gerte heure bu gerte gi wàññeekoo ba war a mën a dem usine bu soobee yàlla danañ ko jël li liñ ci mën a yóbbu usine ñu yóbbu ko usine li nga xam ne dafa war a ñëw Touba tamit ñu indi ko Touba ndax gerte nekkul ne usine rek lañ ko war a yóbbu ñun dañuy am ci Touba gii ñu nekk ak yeneen barab yoo xam ne dañ faa am ay usines yoo xam ne dañuy xolli gerte gi yenn yi ñu koy yóbbu ci biir réew mi di ko nalaat mu war a nekk dëwlin nga xam ne askan wi dana ko mën a jariñoo te loolu li tax mu mën a am mooy gerte gi mën a yomb waaye ñun mënuñu ci dara comme baykat bi moo bayoon ba noppi ne gerteem nangam la koy jaayee lam koy jaayee rek lañ ko mën a jëndee suñ ko jëndee lam koy jaayee tamit ñun fañ ca mën a amee dara dong fa lañ koy yóbbu kon loolu moo nekk jafe-jafe bi nga xam ne fi mu ne sonal nañ trop ba actuellement nii may waxee ak yow yéen nii am na suñu oto yoo xam ne contrôle économique bu Koungheul moo ko jàpp daanaka jàpp na fa lu ma trois oto mais lafa taxaw tey oto presque mën nañ ay vingt oto yoo xam ne dañ faa taxaw ngir maanaam lijjanti problème mu lan moo tax maanaam ñu téye oto yi ci prix bi li ngeen ko jënde xawuma ko te mu wóor leen ne liñ jënde gerte gi ëpp na li gouvernement bi waxoon loolu lu ñu jaaxal la ba tax na bu ñu sañoon problème yi eh, ministre bi dana dana ci dana ci def compte dana ci def dana ci jàppale ak intervention ba ñu mën a joti ci moom ba man koo leeral li xam ne mooy xew ndax dëgg yàlla bu sañoon tamit duñ nekk ci média yi di wax ak ñu naan ñi nangam ak nangam ak yoon waaye nit ku nekk fi nga mën a jooytoo ba maanaam ñu mën laa recevoir rek foog nga a jooytoo loolu daal mooy li nga xam ne moo fi nekkoon ay jafe-jafe ñu bëggoon koo jàllale ci tour turu GIE Codipass ak waa waa adab ñoo xam ne ñun ñoo ànd lépp liggéey bet ndax suñu oto lañ jàpp ak seeni oto waa adab ñoom tamit. maa ngi tudd Fallou Diop nekk coordonnateur adab di association pour le développement économique de Touba mu nekk association bi nga xam ne moo lëkkale mboolem ku yëngatu ci wàllu gerte fii ci biir dëkk bi di Touba. waa taxawaay bi mooy di tàllal loxo état pour mu accompagner ñu parce que ay ndaw lañ ci biir dëkk bi la ñu dëkk di liggéey ci wàllu arachide. yàlla def na ne fi mooy capital arachide bi di Touba parce que Touba li ñu liggéey ci wàllu gerte ak li fiy dugg duggul ci benn réew mais dañu gis ne à chaque fois suñu ndaw yi nga xamante ne si ne dañuy génn di dem ci bitti di jënd gerte gi di ko dugal ci biir dëkk bi dañu problème ba ni ñu wax ak yéen ni pour le moment oto ñu ngi Koungheul contrôle économique jàpp leen daaw amoon nañ problème boobu ci début campagne bi bi ñu duggee rek ci semaine bi bi ñu ko amee recevoir bi bi ñu recevoir mu mettre ñu en rapport ak boo xoolee service commercial yi nekk ci Sénégal yëpp ba depuis bi ñu ci jógee amatuñu woon benn jafe-jafe mais kam ko jóge fi ministre Abdou Karim Fofana moo fi nekk tey jii gis nañ ne ñu ngi commencé am problème te gerte vente libre la gerte ñorewu Touba mais am nañ sañ-sañu nag jënd ko Kaffrine indi ko Touba am nañ sañ-sañu dem Ziguinchor jënd ko indi ko Touba noonu nag ñoom it la ñu amee sañ-sañu dikk Touba jënd fi gerte yóbbu ko foofa defe naa ne benn euh, papier rek moo ñu war a lee pour ñu mën ko jënd muy reçu de commerce yi nii nii ah. boo xasee ba reçu de commerce rek am nga sañ sañu jënd gerte ci réew mi jaay ko ci biir réew mi ay jafe yu métte métte ci contrôle économique yi ci yëpp nag te nag gën a am mooy jëm si parce que bu ñu la laajee dafa mel ne boo jëmee ci beneen dëkk rek doo am jafe-jafe waaye nag boo nee Touba nga jëm si rek da ngay am problème te loolu nag métti na ci liggéeykat yi rawatina ci dëkk boo xam ne mooy deuxième ville économique population ci réew mi fi ñu ci toll ci wàllu économique fi ñu ci toll ci population ñun amuñu ay amuñu géej amuñu port parce que boo xoolee activité bi ñu am ba ëpp doole gerte la muy employé ay junni junni junni doomi aadama amuñu accompagnement état parce que dañuy def ak suñu propre moyen ñun ñooy def suñu investissement tey ji boo xoolee Touba plus de quatre cent et quelques dàgg mi ngi fi ñu dëkkati ko gerte amul lu ñuy wax rasiyaat muy ñi nga xam ne dañu liggéey ci wàllu huilier di nal diwlin gi te loolu lépp en tant que ay ndaw yoo xamante ni si ne dañoo waroon a jaar ci mbënn mi di dem ci géej gi wala ñu wàcc fi réew mi di dem di wuti ji ñoom ñoo jël seeni milliards investir ci biir réew mi di liggéey ci wàllu gerte ba tey tey ci suñu jàmbaar ñu jëlee bassin arachide bi Saloum defe naa ne ñooña nag bépp réew bu ko am dañ leen war a accompagner mais waruñuy gën a dem ay jafe-jafe loolu bokk na ci liñ la woon danañ ñëw tey réclamer ko ba ca dolli ko mooy seen waay yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi depuis 2007 2008 ñu ngi ci réew mi seen waaye mënuñu génn seen loxo ci gerte gi parce que marché bi marché mondial la ni ñu amee sañ-sañ ñu dem Chine jënd matériel indi Sénégal noonu la amee sañ-sañ ñu ñëw fii mais et quelques tonnes lañ na moom lañ bay daaw 2021 2022 ren jotaguñu chiffre bi mais xam nañ ne bu ñu bàyyee woon seen bi li ñu bay ci réew mi lépp mu jënd ko yóbbu ko te ñun li ñu am mënaguñu satisfaire kon nag jàpp naa ne nañu organiser seen waay bi mais ni ñu ko joxe autorisation mu am sañ-sañu dem ci baykat bi di jëndal boppam gerte gi am sañ-sañu jënd suuf fii ci biir réew mi di bay am sañ-sañu investir ci biir réew mi di collecteel boppam gerte gi loolu ñu ngi ñuy rey ñun te def naa na nag ñun ñu jox ñu fi weer dooleel ñu ñu doxale suñu liggéey ak Sinoa bi ñu nekk ay partenaire ak ñoom parce que 2007 ba 2012 ñu nekk ay partenaire ak ñoom ñu leen di jaay gerte mosuñu am problème mais depuis ñu wàccal seen bopp nag ci terrain ba léegi am na Sinoa yoo xam ne nangootuñoo jël sax seen alal investir ko ci réew mi parce que daw nañoo moom ñii ñi ngi liggéey ak ñoom liggéey bu salte boo xam ne li ko waral mooy li ñu fi bàyyi dem ci béykat bi te loolu bokk na ci liy rey réew mi ndax diwlin ko tax ci prix nga xam ne Sinoa lan ngeen di euh, ci àll bi daanaka ñaari at a ngi mu ngi leen di dal est que njortu leen ne dafa am ñu ne si suuf di euh, dara nekku ci lu dul ay nit ñoo xamante ne si ne jàpp nañu seen dund gépp ci ger lañ ko teg gerte. vente libre la Sëñ Blaat dana woon luy ñore ci am réew di des ci réew bëgg nekk frott xawma ko bu njëkk dafa amoon lu ñuy wax ay seko nga xam ne booba képp ku bay ba pare dangay ngay dem ci seko bi noté ñu di la fay mais tey commercial bi ubbeeku na ci gerte ba nga xamante ne si ne ñëpp koy jënd si tey nga xam ne seko amatul parce que amatul benn seko booy dem ci Sénégal fekk fa gerte dafa am lu ñuy wax luuma muy ay marché Sénégal dëkk boo ci gis muy bay gerte rek am na jour boo xam ne mooy seen luuma ci la ñëpp di daje nag bu ko defee baykat yi génn seen gerte indi ko ci luuma bi jaay ko tey li ñu lay wax mooy facture mais baykat bi nga xam ne dafa bay gerte indi ko ñun mën nañu defar ay faux facture mais loolu amul njariñ parce que en tant que ay opérateur économique am ay agrément Sonacos di jaay am ay partenariat yu jóge Siin Turquie fu nekk ñu di fa dugal gerte di jël gerte Burkina di dugal ci réew mi di jël dem Mali fu nekk di dugal kooka pour am ci digganteem ak baykat bi amul benn problème mais gerte goo xam ne ci réew mi la ñu koy ko jaayawaat ci réew mi muy des ci réew mi kay defe naa ne wóoruñ ci am du bu contrôle économique nag bu ci téye oto wala nga téye ci ab baana baana rek xamal ne xaalis nga cey wut wala nga bëgg koo sonal mais koo xam ne gerte gi mu yor ci réew mi la ko jënde ci réew mi la koy jaayate jàpp naa ne ko fexe ba baykat yi liñ bëgg ci ñoom ñu ko loolu rek moo ci jàmm